leen nuyu di leen ziar yéen ñiy suivre Sport ñu war a ñëween ci benn vidéo wax ci arbitrage bi doon arbitre match Sénégal ak Côte d'Ivoire mu nekk arbitre boo xam ne keroog mën nañu wax mooy yàq match bi polémique bu bari ci moom nag comme ni ñu ko waxee lisaan yi ku nekk wax nga sa wax pour joxe sa point de vue ci li nga xam ne moom keroog daan ñëw ci loolu gën cee développé mais laataa loolu dañuy wax yéen ñi nga xam ne gan ngeen ci bile page ngeen abonné te ngeen bës li nga xam ne mooy bi pour ngeen am suñu ay vidéo à taaral fii ci Remo Sport sama gars yi match bi match Sénégal bangoog ak Côte d'Ivoire gis ngeen défenseur Côte d'Ivoire ni mu def suñu attaquant bi Ismaïla Sarr ni mu dóoreel tànk bi mu nekk penalty bu leer ndax ñetti option moo tax mu nekk penalty bi ci njëkk dafa dóor tànk bi bu ñaareel bi dernier défenseur fu mu laalee penalty la bu ñetteel bi dafa marquage marquage derrière ndax Ismaïla Sarr moo ko jiitu kon penalty bi moom kenn du ko contexté dafa leer ñi moo gën a leer sax penalty Côte d'Ivoire ba léegi nag oh, nee ñu VAR bi moom problème moo tax arbitre bi tiiru ko waaye man d'accord dama jàpp ne yooyu ay layla rek pour bëgg a jàmmal seen bopp wante nag lu may manti wax di ko wax di ko wax mooy kaaf na def li nga xam ne mooy rëlam topp ko jusqu'à vous ba lu yoon lu mu war a teg daan comme arbitre bi mu teg ko arbitre bi ndax lii am na lu nekk ci gannaaw am na lu nekk ci gannaaw.